salaamaaleykum Sénégal ak Gambie seen diggante ñagas na lool Sénégal ak Gambie Sénégal gi ngeen doon wax loolu da ngeen cee dugg wala seet leen Samb Aïda Samb Aïda Samb sénégalais la jëkkëram euh, Gambien la Gambien Aïda Samb musique seen lii ñaaw na trop leen première bu nu jaay ak deuxième bu léegi troisième bu fuur moo ci des ma xool ndeysaan Aïda Samb sóoraal leen Aïda Samb Samb jëkkër ji Gambien de

yàlla yàlla defal jàmm prochaine match yàlla na ngeen gañ waaye bii sax mën naa dugg bii nii maa ngi ci tiit loolu waaye bii de bu duggee nag àdduna tukki moom bii de bu duggee moom moom bii de xanaa ñëwu leen ko dugal nag li da nga am xel Eliane Ndiaye